jërë ngeen jëf bokk Leewtoo TV tey ñu am mbégte nekk ak yéen fii ci Gambie am mbégte nag jàkkaarloog euh, borom kii géré hôtel bi nga xam ne nii foofu lañ dal mooy helping. helping charity helping tey ñu jàkkaarloog moom mu war a wax euh, nan la hôtelam bi di dundee pandémie bi ak euh, làmb ji am fii temps yi Gambie sénégalais yi ñëw ci hôtel bi logé ko yooyu yëpp dinañ ci waxtaan mais pour ñu démarrer dangay ngay présenté wu wax yow la kan ak hôtel bi fan la nekk ci ban dëkk la nekk ci Gambie. waaw man maa ngi tudd Abouba Sow man may gérer hôtel bi hôtel bi mu ngi nekk fii Fass Ndiaga Coy jot sooy dugg Gàmbi rek soo jogee am dàllaay rek dëkk bi ngaa jot waaw. maa ngi commencé di am Sénégal si because comme ñoo wax ne Gambia Sénégal ñoo bokk ndey ak baay ku fi ñëw daal dama la dee téye rek mën naa yow a bokk soo loolu moo tax ku fi ñëw rek dama la dee ubbilal daal ma bàyyi ma bàyyi la nga def lu la ne euh, semaine yi gis na ne Sénégal amut euh, làmb. waa Gambie di tëgg ñu gis promoteur Sénégal yi jogee foofu di ñëw est ce que voyage boobu la fait que sénégalais yi jógee Sénégal di ñëw tëgg si Gambie est ce que yaa ngi profité wu ci loolu en tant que gérant hôtel. waaw macha allah e, daanaka mën naa wax ne trip bi ngeen nii bi ñëw nii moo nekk suma foo trip ak ñoom ñi dee ñëw yëpp daanaka feneen lan dee dal xam nga bu ga gars yi xamu ñoom place bi wax na fi ñu toll nii daal e, bi ma ñëwee fi ma fekkaleen fi dama kontaan bu baax a baax. bi ko dama gis ne daal lii dafa gën tax daal soo leen delloo ñeneen ñoo xamante nekk si gannaaw danañ bugg di xam place bi waaw because li ngeen fi dugal loolu daanaka dafa dem po dimbal askan bi donc ñun tamit fii lu fi duga xamal ne yaa ngi dimbale askan bi because ñu ngi am ay nursery school yoo xamante ay xale yoo ne ñu leen naa jàngal free of charge so ñu ñoo leen ñu ñoo defee teachers yooyu noonu ba pare xale yi seen dunda bi tamit ñu ñoo leen dee jox xaalis boobu noonu soo lu nekka lu ñu ñu ñoo leen ko dee jox waaw soo soo daa gën a seen loose bi fii nii kontaan naa si bu baax a baax. Fallou waaw. également toujours euh, dans laction de di interviewer ñi nekk ci hôtel bi ñu dajeeg fii Fallou Ndiaye mi nga xam ne nii moom moo tëgg combat bi comme euh, gala bi gala bi nag mi ngi commencé démb le 27 euh, février. tey war a nekk dernière journée bi tey di samedi mais avant tout ñu wax ko ni mu gisee journée démb bi démb tëgg nga sa première journée bi muy le 27 nan nga gisee journée démb. waaw démb moom macha allah vraiment stade bi lamb ji neexoon na trop vraiment ndax it euh, bi mooy sa première ñëw Gambie di gën sa fii ci Fass ñu ñëw vraiment gis nañ ne mise bi ñu tegoon. dëgg yàlla su ni melee tey ni niñ ko tegee jàpp naa ne dañ am satisfaction bu ñuy ñibbi ndax ku ne xam ne démb lañ doon def deux cent cinquante mille bi pour mbëru ndaw yi tey nag dañu war dem ci daj dëpp gi muy li nga xam te ni mooy miss mag bi muy un million franc CFA bi ah boobu nag dañ ciy xaar Gambien yi ñu gën a génn ndax gis nañ ne génn nañ démb mais li ñu soxla cent pour cent ñu ko démb mais comme démb mbëru ndaw yi la woon bon peut-être xam naa moo tax ñu xaw a réservé wu pour tey tey nag ah ñu ngi xaar ñëpp rek ñu ñëw def innovation bu mag xawal nan la def daal ba ñëpp kontaan comme niñ kontaanee démb ndax démb vraiment képp ku fa ñëwoon kontaan nga ndax ambiance am na fa way am na fa macha allah mbëri wane fa seen bopp. ambiance am na fa woy am na ngay def ba éviter ko tey. waaw am na tuuti problème nag euh, ndax man bi ma problème sax boobu maa ngi ci biti mais yooyu la xam nga mbër la moom bu yaram tàngee souvent lu ne mën naa xew mais incha allahu gis nga gars yi xëyee di waxtaan di xool na lañ ci defee seen ay réunion pour incha allahu jii duñ gis benn faay duñ gis benn jafe-jafe ci diggante mbër yi ndax boo xoolee heure bi ci mbëri la rek ñooy dem bëree kii daan na ma daanu ma ñoom problème loolu nag entre mbëri la ak yi la mais incha bi yoon dinañ ji ma waxtaan ak mbëri tey waxtaan ak arbitre yi ñu fexe ba lépp di leer ba ku ne di ci mën a gis sa bopp ba nga xam ne benn problème du am. mais wàllu doon ne Sénégal ngay tëgg benn gala loolu pourquoi nga def ba choix boobu. waaw loolu nag ci dëkk bi la loolu dëkk bi mooy doxee noonu ndax tey ñun bi ñu ñëwee li ñu leen imposé woon yaakaar naa bu ñu ko joxoon moom mën nañu ëpp sax nit ñi mais nag comme ñun liñ man mooy réewum jàmbur lañ ñëw ñoo ñu jox ay autorisation jox ñu lépp. fu ñu teg loolu fa la ñu teg mais teewul wut nañ sécurité boo xam te ni incha allah tey dina gën a daal tey jàpp nañ ne tey moom incha allah dinañ gis leneen daal bu neexee yàlla. côté organisation ni bi est-ce que doy na la. waaw loolu moom am na ay yoo xam ne nii gars yi ñu ci waxtaan léegi moo tax gars yi dañuy añ rek départ dem foofu ji ma xool na lañ ko organiser waat ñëw nga xam ne dañuy reer sangu noppalu doog a dem incha yëpp nañ ko xool ndax it xam nga gars yi expert lañ biñ fa jógee ñëw nañ xool xalaat ne ñoom il faut ñu def ko affaire Sénégal tey tey moom affaire Sénégal ngeen gis su ngeen ñëwaatee ndax sénégalais yi ñooy seen xalaat génne seen xam-xam dugal ko incha allah pour affaire bi gën a mën a yokk pour li ngeen soxla dëgg ngeen gën ko mën a am. gis nañ souvent courant bi day coupé est-ce que tey prévoir nga benn groupe boo xam ne nii bu courant coupé rek mu déclenché. waaw démb sax prévoir nañ groupe démb c'est-à-dire euh, bi courant coupé gis nga gars yi dem nañ jëli groupe ñëw indi teg yaakaar naa bi làmb ji jeex presque ci la courant bi doog ñëwaat kon yaakaar naa loolu moom tey jii du am ndax jàpp nañ ne tey bu courant bi coupé rek groupe bi déclenché na tey moom benn retard du am su neexee yàlla. bi mooy dernière journée Gambie puisque le huit yaakaar na Adama Barrow def na benn euh, décision comme quoi day arrêté tout tout ce qui est manifestation da ngay euh, jëm Sénégal jéem a tëgg foofu wala Fallou moom pare na ci saison bi. no pare saison bi moom mënut a nekk dèjà ñun Gambie sax dañuy ñëwaat incha allahu rabbi mais Adama Barrow comme Sénégal rek dafa joxe benn décision boo xam ne ni Covid bi moo tax su fekkee Covid bi jeex na. pare nañ pour organiser yeneen événement yu mag fii ci ci biir Gambie bon Sénégal nag ñu ngi waaj comme ñëpp euh, di xaar rek euh, mbas mi jeex ñu ubbi bunt ñu mën a commencé tëgg mais actuellement li fa xew nii moom ñun conditions yi mënuñu cee tëgg la am merci. d'abord. waaw d'abord lu ma fi indi mooy sama mbokk promoteur ma invité te nit ki bu demee ba yéeg la. woo la téléphone nee la ah bis bii de bu doon sama sago nga teewal ma doo def lu dul teewal ko loolooy sama teewaay tey fii. mais ba nga ñëwee nan nga gisee Gambie d'une manière générale nan nga gisee dund bi ak fi nga logé environnement bi nan nga ko jàngatee. avant sax gis-gisu Gambie gis-gisu Fallou Ndiaye lay ñi ko wax parce que nit ki nga xamante ni wóolu na la nga bàyyi ko Dakar ni moom ñëw mu dalal la jël otel wax dëgg yàlla jël xaalisam bi yëpp këpp ko ci. rawatina it borom hôtel bi ñëw accueillir ñu accueillir bu rafet mu mel ni que ni moom sénégalais la moo te waral ñu naan Sénégambia kon loolu day dalal xel mais yemul foofu fàllu ñëw jël lépp li nga xamante ni bëggul kenn xiif fi bëggul kenn mar fi bàyyiwul sax ah waxuma la sax mm, pro invité yi de mais ñi nga xam staff bi ñëpp la yemale jël ay eau minérale jox leen ko ñu naan bëggul kenn xiif man loolu rek d'ailleurs ka daf ma yóbbu Touba man dafa mel ne Touba laa nekk franchement man looloo ñëkk a seddal sama xol quoi franchement alhamdulilah. lamb ji en tant que tel noo ko dundee démb def nañ première journée bi muy pois léger yi démb nan nga dundee lamb ji fi amoon démb. waaw démb lamb ji neex na trop parce que tey jii bu fàllu ñëwee déplacé mbay ak indi ko jëlee ko Sénégal indi ko dakaar kon dafa mel ni ñun démb Sénégal lañ toog. wax dëgg fa yàlla waaw Mor Ngom nekk si côté bi ñu toog maag euh, fàlu ak staff bi seetaanoo ko ndoo ko kon loolu du def lu dul sedd suñu xol ba pare ñun suñu xol fu ma toog noonu rek wax dëgg fa yàlla sama tànk yi wax dëgg yàlla maa ngi mel ni mbër bu war a tuus. alhamdulilah. yande ñu jox ko kàddu également mu sànni ci quelques kàddu yu euh, yan témoignage lay def non seulement ci Fallou Ndiaye mais ak li mu gis ci démb ba léegi ci journée bi lan nga ko nan nga ko jàngatee d'abord yan témoignage nga indi ci Fallou Ndiaye. waaw mais ginnaaw ma la nuyoo maa ngi nuyu staf Ndiaye bon du nuyu ñu fi ñëw ñëpp ak mbay mi ak bon Jams gars yi promoteur yëpp ñu ngi fi woon mais Ndiaye dafa def rafet quoi lu rafet li mooy woo gars yi fii ba Gàmbi gars yi bàyyi seen yitte yëpp mu ñëw teral ñu gis nga affaire yi nu mu demee sant yàlla lañ si am si démb aussi ñun ñëpp kontaan nañu gars yi ñu ngi si jàmm borom hôtel bi accueillir ñu senegam bi Sénégambia actuellement ni daal sant yàlla lañ gisagum quoi sant. làmb ji ni ngeen ko dundee neex na li nga jot a gisagum noo ko jàngatee. non làmb ji neex na neex na démb trop neex na lu ma jot a gisagum neex na mais xam nga boo ñëwee fenn te miinagoo ko des fois il faut mu am ay tuuti tolof tolof yu ndaw ndaw yooyu. mais tey moom xam naa ne moom ak final bi moom dina gën a neex quoi incha allah <laughs> ok. ah yow tamit yow li ñu nekk yëpp ko ne xamoo ma man la Tafa Mbengue Tafa bu Fallou Ndiaye Tafa bu Ndiaye production waaw. Tafa ngeen gisee seen première journée démb bi est-ce que am nga satisfaction ci après tournoi poids léger yi. waaw sant yàlla rek du ñu def lu dul sant parce que moom réew jaamu moom boo fu ñëwee bu ñu la dalalee lu ñu la teralee rek da ngay jël waaw te ni Gambie ak Sénégal benn la. bañ fi ñëw nag xamuñu fi lu bari amaana dañ topp ci ginnaaw ay nit nit ñi dañu tracé yoon bi ñu ciy topp waaye liñ gis démb xam nañ ni tey euh, am na si loo xamante ne bu ñu leen koy yokkee wax dëgg faa la dañ am satisfaction totale quoi malgré démb moom wax dëgg faa am nañ satisfaction tuuti comme ñoom ñooy guide yi ñoom ñoo ëppoon lu ñu jiite mais tey nag dañ fexe ba collaborer nag ba nga xamante ne ñun li nga xamante ne moom la xam Sénégal ñu ni ko yokku leen ko pour affaire yi gën a am doole quoi. Hmm, jërëjëf. présenté waaw Malick bale bu Ndiaye production waaw maa ngi lay sant bu baax a baax a baax di la nuyu mhm. waaw di. d' accord démb ngeen am seen ngeen def seen première euh, journée muy pois léger yi après journée boobu euh, ban euh, réaction ngay def ci seen première journée boobu. waaw démb nag franchement am nañ satisfaction bu baax a baax a baax gis nañ ci li nga xamante ni kaw na suñu njott franchement ak li ñu doon séntu quoi kon nag ñu ngi waajal rek tey poids lourd beeg final bi. Euh, di si woo ñëpp nag en di wax ni waa Gàmbi wuy si nañu kon nag dañuy ñaan rek cat euh, bañ see dugg mu yegg si ah, jàmm ak salaam. organiser Sénégal ak organiser Gàmbi nan la ban moo gën a yomb pour yow. waaw waaw xaw na am différence tuuti nag ndax euh, dëkk boo dëkk ak dëkk boo dëkkul moom waaw faa mu am différence tuuti quoi mais nag sant ndax am na ñun fi fekk ñu nga xamante ni ñu ngi ñuy teg si ay loxoy wóor teetañu waaw franchement ñoom nag duñ def lu dul di leen di leen wax ni nag euh, gis ngeen taxawaay bi quoi. jaajëf Malick. maa lay delloo ziar Seydina Assane. am di démb ngeen tëgg seen première journée est-ce que euh, après am nga satisfaction ci li ngeen jot a def démb. waaw wax dëgg yàlla am nañ satisfaction am nañ satisfaction puisque mbër bëri yi bindu si bëri te aussi bu ñuy wax làmb ambiance tax ñu koy wax te ambiance moom total la fa kon am nañ satisfaction te loolu comme première journée la mënul ñàkk ay manquement ay mais loolu lépp dañ koy rectifier tey quoi parce que comme dañoo ñëw am ñu ñu dalal ñu fekk leen fi dañ leen di jox cër bi ñu moom bàyyi leen ak journée bi mais gis nañ ni comme ñoom seen réalité ak ñun suñuy réalité bokkul donc seen réalité am na lu si baax mais am na loo xamante ni am na désorganisation quoi après dafa am lu ñu leen di yokk rek ñoo ànd liggéey pour tey ñu dund làmb lutte simple pure et dure incha allah. daal tey moom mooy euh, daj dëpp gi. waaw tey mooy daj dëpp gi comme nee nañ dañuy tëj affaire yi le 8 mars tey ñu jéem a def loo xamante ni bu ñu fi jógee ñoom ñëpp dañuy réclamer après bu ñu lever sanction yi fi nekk ñu mën a ñëwaat incha allah defaat fi leen mais tey moom ku fi ñëw di nga dund làmb làmb bu am sécurité làmb bu am ambiance totale incha allah jaajëf Assane. Euh, Mor nan sant waaw Baye ñu ngi lay nuyu. waaw di nuyu waa Leewtoo TV yëpp waaw Mor bu parcelle. waaw bokk si staffu Ndiaye production bi. waaw gars yi nag di si liggéey lu am solo waaw. mu ngeen def seen première journée. Euh, nan nga jàngatee journée démb bi. waaw jàngat bi di weesu lu dul satisfaction tamit euh, gën a euh, defaraat affaire yi gën a xoolaat toogaay parce que Ndiaye production nekkul lu ndaw daal waaw su déplacé wu dëkk dëkk waaw expérience bi di am Sénégal dañ ko war a partager suñu mbokk Gambien yi. te incha allah ngoon bëgg na nañ ay changement yu bëri am si parce que ñu ngi dégg ay champion yu mag dakaar yoo xam ne actuellement ñu ngi si dëkk bi war a bëri si poids lourd bi yooyu nag day day laaj suñu expérience bi ñu am ñun ak ñoom foofu ñu partagé kook suñu mbokk Gambien yi pour affaire yi yegg si jàmm daal jaajëf. waaw waaw maa ngi lay fay. waaw Fallou benn gala fii ci Fass Boy démb ngeen def euh, poids léger yi. est-ce que am nga satisfaction après bii loolu jàllee. waaw ñi ngi nuyu Sénégal ñëpp di nuyu waa Gambie di kontaan ci njaay production bi ni ñu déplacé woo jóge Gambie ñëw si Sénégal ñëw fii Gambie ni ñu jógee Sénégal ñëw fii Gambie waaw affaire bi moom démb naay sonn na trop mais amoon na ay tuuti kii yu ndaw rek waa tey waa njaay bi moom pare nañ pour buñ demee gën a accompagner Gambiens yi xam nga ànd ak ñoom ci liggéey bi pour mu gën a rafet daal pour affaire yi gën a mën a am kii daal. waaw. tey ñiy xaar ay ay ténor ay poids lour est-ce que mën nga ñu ci avancé ay noms yoo xam ne ni yaakaar nga ne war na ñu ñëw ci galaatay tey bi. waaw parce que dégg nañ fi ay champion yu jóge Sénégal ñu bëri dégg nañ leen fi tooy tey am nañ yaakaar ne moom bis dina gën a ala daw me que daal waaw jaajëf merci waay. jaajëf jaajëf. ngeen ko gisee Babacar ñu fekk fekk ci lalam muy muy muy nelaw moom mooy patron bi quoi. nelaw na wa yow digg njaax ñu digg pour laaj ko quelques questions rek. Mm-hmm. ok Babacar léegi nga ñëw ci gala Fallou Ndiaye bi depuis démb ñu nekk fi premièrement nan nga dundee ak gàmm bi. waaw sant yàlla rek xam nga gàmm bi moom Gambie benn dëkk la quoi amul ñaari dëkk quoi parce que sant yi ngay fekk fii ngay fekk fee. kàddu yi ngay bàyyi fi la ngay fekk fii xam nga. kon nag dëkk la comme ni ma ko waxee sama reportage tubaab bi moo ñu yóbbee lii yëpp quoi. <laughs> moo ñu jël xam nga. teg kii fee teg kii fële naan kii nii la kii nee la mais ñun ñëpp benn lañu moo tax ba boo fi ñëwee. Mhm. dèjà da doo fekk lu accueil bu baax rek. ñu ñu Gambie bi leen ñaanal jàmm ah. mais aussi itam di am plaisir wax comme nii ma ko wax wala si micro bi parce que mooy loolu suñu. jaar daf boo si suñu carrière Leewtoo di nuyu yëpp ku fa nekk rawatina borom kër yi Pape Thialis. jaajëf non mais démb démb <laughs> yow yaay borom Leewtoo Babacar. d' ailleurs yow Babacar Leewtoo lan lay wooyee loolu yàlla moo ko def. yaay borom Leewtoo. léegi démb nga euh, seetaan euh, pois léger yi. Mhm. est ce que am nga satisfaction ci combat yi abord. waaw maanaam ni ñu bëree moom rafetlu ma parce que mënoo comprendre lu ñu 64 litres la xaw ma. Ah, ñu nekk di bëre ba zéro heure ba presque quatre heures du matin. zéro heure la commencé jëm ay quatre heures. voilà loolu mënta ne. maa mhm. ngi dégg defe naa kon loolu lu ñu war a xoolaat mhm. mhm. a a tamit yenn yu bëree su ma am rek. ñoom la marbitre de jeu bi moom moom moom la kon ñoom des arbitres yi tamit la war nañoo xool baax la ñuy teg ko si yoon ba nga xam ne nii du am jafe-jafe donte nag satisfaire ñëpp à 100 pour cent mënta mais nga fexe def la tout say mbir yow mm-hmm. mi koy def nga am sa conscience tranquille nga xam ne man <laughs> <laughs> moom xam nga man moom comme ni ñu rek làmb moom dafa nekk sama passion mm-hmm. man ba may nekk xale ba tey defe naa ñi ma xam la demee sama dëkk ak yaay loolu lañ xam nañ ko ci man mm-hmm. làmb laa ma si bëgg moom dama koy dund mooy sport daax sax lay la sport lay wax mais lamb da cee ëpp doole. Mm-hmm. muy football ba muy yooyu mais lamb moom. Mm-hmm. wax dëgg ni may def moom mooy loolu moo tax ba nga xam ne nag et puis tam doomu séeréer la waaw bu ñu sëggee way te sénégalais la aussitôt man du ma complexe quoi waaw man du ma du ma complexe man doomu réew mi fii laa juddoo xam nga sama rythme dëkk su ma ko déggee sama rythme nit da koy wax lu yëngu la ko yëngal moo ko putoole te doomu sénégal la te loolu sama cosaan la <laughs> <laughs> yàlla maa lay nuyu. dëggantaan Assane Dieng la. di lay nuyu bu baax a baax a baax a baax. sant bu baax kay. voilà de tey nga ñëw Gambie accueil bi euh, d'une manière générale lan nga sentir accueil yu Gambie bi. waaw hmm. euh, bi ñëwee Gambie pratiquement am xam nga olof sax la ñuy wax. mais dañ ciy cabaxal engrais. mais accueil bi vraiment xam nga accueil yi nañu xam te population franchement adhéré na ci. ci mm-hmm. événement ci événement mm-hmm. ko fii daal. Mm-hmm. def. vraiment population bi adhéré nañ te rafetlu nañ. nga dund fii première journée bi dem léger yi. nan nga jàngatee combat yi fa jotoo xew. waaw man yaakaar naa ni combat yi neex la. surtout tour bi ñu xam euh, bëri yi ñu fi fekk xam nga bëri nañ ñu en plus de ça xam nga man xam nga indee làmb gaab bi. Mhm. dafa ngi fi fekk. c'est vrai di nga leen ci boole mais tamit peut-être yaa leen ëpp expérience. exactement dafa laaj xam nga ko organiser sa say mhm. ñu ngi fi fekk tamit. en plus de ça nga indi sécurité bu doy. parce que loolu c'est très important. Mhm. tamit xam nga euh, ñaari réew yi gaa benn lañ mais. Mhm. peut-être ni ñu Sénégal li mu amee expérience. ci organiser ay événements ñoom Gambien yi amaguñ ko. Euh, ngi lay maanaam yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa Gambie bi. waaw gaa mi maa ngi waaw ñu ngi sant yàlla daal gaa mi neex na daal <laughs> waaw. doo ñibbi. waaw suñ paree lu ñuy def rek ñu ñibbi incha allah mais gaa moom neex na amul takk masque amul dara. voilà <laughs> eh, masque yi ñoo ci gën a marqué. waaw waaw amul coronavirus. amul amul couvre-feu waaw. libre ngay waaw noonu la defee. démb nga ñëw fi pour ci gala Fallou Ndiaye bi nga dund premier journée bi seetaan nga laam ji nan nga dundee kombaay waaw combat yi neex na trop xam nga. mbër yi jóge nañ dakaar mbër yu bari ñëw xam nga làmb ji neexoon na torop mais malheureusement mënu mujjul yegg xam nga tey nag euh, tey ñuy xaar combat yi yegg ci jàmm ñu mën ko seetaan ak jàmm li xewoon démb daal yàlla bu mu am tey. démb ma fàttali ne guddi bi moo tax ñu ñu ñu ñu ko parce que dañu euh, combat yi zéro heure la commencé zéro heure cinq minutes su ma juumul le premier combat yi mu dem ba ay trois heures trois heures et demie. après ñu arrêté ko parce que dafa guddi woon ci 16e de finale yi nag lañ ko arrêté léegi do des kon su tey ci ngoon à partir de 16e de finale yi la ñu commencé jëm finale pour poids léger yi doog a commencé poids lourd yi mais euh, qualité lamb ji qualité euh, bëri mbëre bëre bi est-ce que doy na la. waaw gars mën nañ bëri trop xam naa envie bi la ak gëj a bi gars yi mën nañ bëre am nañ doole xam nga parce que soo soo seetaanee combat yi da xam ne mën nañ bëre trop combat yi neex na trop comme que combat yeegul démb ah tey suñu bëggee boole léger yi ak lourd yi benn ci guddi gi gëm naa sept heures la ñuy pare mais dina <laughs> mais dina doy waar daal dina yéeme trop. daa daa daa xamul nu koy waxee daa indi équipe bu am doole. Leewtoo dafa mobiliser équipe bu am ngi noonu maa ngi lay delloo ziar Assane Waalo. voilà tey démb nga reporté lu neex macha allah nga reporté lu neex gaa yëpp apprécié boo duggee ci vidéo bi di nga ko gis. Babacar reportage fan nga ko jëlee. waaw xam nga xam nga làmb dafa dafa dafa bokk ci ñun te li nga bëgg sa passion boo koy def da nga koy sentir da nga koy yëg mbir bala nga kaa def da nga koy bëgg ba pare da ngay am da ngay am bëgg-bëgg bi ak volonté bi te ñun franchement làmb dafa bokk ci ñun loolu moom moo tax buñ koy bu ñuy def reportage yi dañuy nekk en l'aise day mel ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ak suñu suñu ay xarit di waxtaan nekk làmb nekk suñu aada nekk suñu cosaan ba nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp nag ba pare nag euh, euh, làmb ak ambiance am su làmb ci làmb rek nga ko mën a dund mënoo ko dund ci lenn lu dul làmb. mais nit mën na am benn passion mais du xam loolu mais yow dañu sentir non seulement am nga passion bi mais également xam nga li ngay def Babacar foo jàngee loolu. Euh, bon dama naan dama naan dama naan loolu nag mayu suñu borom la don la parce que nekkul la nga xamante ne bii kenn toog na naan ma da waxal lii wala defal lii wala defal lale euh, bien vrai que nag am na ci ña nga xamante ne bii ñoo ma ci jiitu ma doon ànd ak ñoom euh, ñu ma ci doon orienté ci lu bëri ko ci mel sama benn grand bu ñuy wax Moussa Faye làmb ji nekkoon Bawol FM moom laa doon moom ma njëkk a moom ma njëkk jox micro ne ma reportel ma jël micro reporté ànd doon ànd ak sama grand Etienne Ngom moom tamit fu ñu fu ma agsi ci làmb fu ma agsi ci reportage dama ko ciy sant bu baax baax a baax a baax a baax di wax ne ñooñu daal bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo ma gën a motiver ma bëgg lii di reportage làmb jaajëf la la la la l'enfant terrible de Leewtoo quoi. <laughs> waaw mais Assane Waalo ngi lay ziar ah ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi bi Benjamin des caméraman mañ pro waaw. voilà démb tey nga démb nga ñëw Gambie pour seetaan fi benn wala pour couvrir fi benn gala nan nga dundee gala bi Ousmane. waaw ça s'est bien passé bon comme que ni premier journée la jàll na ak jàmm euh, gars yi bëggal nañu mbayang waay na gars yi tëgg nañ ah, Mor Ngom tëgg na gars yi bàkku nañ yaa ngi comprendre jaayu nañ foofu noonu yëpp comme que ay gladiateur lañ waaw bon Leewtoo nag ñëw fii pour def euh, liggéeyam comme à chaque fois niñ ko tàmm waxee ñun moom làmb moo ñu tax a jóg quoi ñun on est on est on est on est la de lutte web TV bi nga xamante ni moom mooy def làmb kese 100 pour cent làmb. ñëw nga mais si sa liggéey en tant que monteur lan moo ci lan moo ci kiiwul démb lan moo ci xaw a sooxe démb. bon daa ci montage bi moom naa sans bon yàlla defal nañ ñu koy nu on est on est à pour monter fépp même bu nekkee ci biir arène bi sax mun nañ monter mais jusque voilà am nañ benn souci boo xamante moom lañ ci fekk et du ci ñun. parce que dañoo génn suñu dëkk ñëw ci dëkk jàmbur les problème de connexion ak yooyu noonu donc les réseaux ne sont pas les mêmes donc loolu rek la am comme problème mais alhamdulilah ñoo ngi jàllale information. d'accord démb gis na ne làmb bi guddi na guddi na jeex mais lu mu guddi guddi yow avant ngay nelaw euh, publier nga sa benn vidéo loolu concurrence bi ngay sóoraale wala. non non non or hormis concurrence bi hormis concurrence bi yàlla a que bon dañuy sóoraale suñuy internautes. Mm-hmm. soraale suñuy internet weesuwul bon ñu dugal vidéo bi bu ñu yeewoo ñoom le matin tin ñu jot la bonne information jot carrément que ni euh, euh, Gambia làmb amoon na fa quoi que Leewtoo dem na couvrir ko jox na leen information bi à temps mooy que ñoom yeewu nañ un dimanche matin dimanche 28 jot information premier journée làmb tey tamit incha bala ngaa nelaw internet yi bu ñu yeewoo dinañ am euh, vainqueur ou poids incha allah incha allah noonu internetu Leewtoo TV jëlal na leen réaction Fallou Ndiaye jëlal leen réaction Bouba bi nga xam ne nii moom mooy gérer hôtel bii ñu dal di ko remercier ci accueil bi baax na lekk yi macha allah lépp mën na ñu leen eh, defal nag première journée bi mi ngi woon noonu journée bu neex la ñu leen di dig dajeka ne tey di samedi di journée poids lourds dina leen incha allah balaa ñu yeewu eh, comme ni ko Ousmane waxee monteuru Leewtoo TV yéen internet yi bala bu ngeen yeewoo di ngeen fekk vidéo bi disponible ñu leen di remercier bu baax baaxa baax a baax a ci commentaire yi ci remerciement yi jot na lépp di jox dig daje ci yeneenu jotaay jërë ngeen jëf ah cum ay waa jile non bi nag mañ pro benjamin de cameraman oh mañ kawoona mañ oh waaw ah, mañ may ma kanam bi doo xam naa dangaa sodd lan la mañ <laughs> non mañee eh. mañ des na tey ci guddi de oh non benjamin laa yi benjamin de cameraman dafa sonn ndeysaan cey moo xool moo maane xool ko moom moom seetaan série rek la fi nekkee te série bi sept heures du matin ba léegi mi ngi koy seetaan te mu jeex sept heures du matin ba léegi yaa seetaan série bi mu jeex non te moo li yi moo moo pàcc la indi gambe bi billaahi xool leen ko ak kaw si ndaw yi moom nekkee fi dul wér wér rek la fi nekkee